mbokk yi xarit yi ñoo ngi fii ci stade Aline Sitoé Diatta comme ni ngeen ko xamee euh, li ñu fi tax a jëw rek moo di euh, championnat Sénégal bi nga xamante ni dimanche bi lay jeex te Casa mu ngi ciy recevoir lii di équipe Guédiawaye football club. Euh, match bi nag dafa coïncider rek ak championnat bi jeex. Euh, Casasport, Sport daal di champion du Sénégal match bi nak euh, am solo ndaxte fay coïncider ak li nga xamanteni Modi, gatandu Coupe d'Afrique bi nga xam bom le Sénégal gagné won ci Cameroun. Euh, fédéraux yi ñoo fi ñi nga xamanteni ñoy autorité locale yi aussi ñoo fi ñom ñep dañu ñëw rek ngir bok ci fête bi mu nek fête bu bag nak askan waangi commencé ñëw fi sax ci. Euh, stade alime Sitoé jaata lépp rek ñoom ñëpp nee nañu mbégte lañ ci gis te dinañu wane loo xamante ne kenn mësu ko gis ci euh, lii di ambiance ci stade yi ak li ni mel nee nañ nag fair play daal la ñuy wër ak li nga xamante ni moo di ñëpp di fo ree ñëpp kontaan mu nekk jour boo xamante ni jour mbégte la.